kon mbokk yi Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen comme ni ngeen ko xamee woon rek tey nag ah gis ngeen Papa Sow ginnaaw bi mu defee li écréme bu bees ñu ngi ñëw fekk fi nga xam ne nii fi la ne. mu def nii ñu doon see bëgg waaw parce que parcelle cent pour bi day am barki alxuraanu karim. Papa Gueye bëgg naa la. fii la paiement am. mu mel ni léegi nag sañ jigéen écrit bu bees définitivement liggéey des de wala. waaw noonu la rek àdduna moom fépp foo nekk rek na nga liggéey def li nga war a def. ah lépp lu nga li nga xam ne daal tere woon ko rek nga nekk si quoi incha allahu rabbi yàlla mën na laa dimbali si lu bari waaw parce que loolu mooy àdduna quoi waaw. maar nañ dugg si biir jàmm maa ngi lay bëgg. maa ngi lay delloo ziar. defal nii nit ñi gis la yow dañ laa war di gis. ndax da nga am foo taxaw léegi ci réew mi. dama lay ñaanal félicité di ñaan yàlla li nga sum yàlla na ko yàlla yëgale barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam borom jom nga yaru nga te yar dañ koo taamu si doomu aadama yëkkati allah. loolu tey nga ma fekk la kër père ba mu mel ni fii moom sa kër la mais Papa Sow taxawal lu bees yow en tant que nouveau promoteur xale loo ciy sànni comme kàddu waaw comme ni nga ko waxee fii sama kër la fekk nga ma tey sama kër papa fekk nga sama kër kilifa euh, muy père ba mag Sow ñun ñaar su ma yeboon sunu papa la tey nag li nga wax dafa am solo mooy Papa Sow taxawal écrit bu bees duñ def lu dul di ko ñaanal lépp lu mu ci bëgg yàlla defal ko ci lu kawee njortam te écrit bi ñëw na fi mu war a ñëwee ndax ni mu ko tuddee rek tur bi tur day wuyu borom wrestling académique wrestling ci anglais tour anglais la mooy bëree académique nag lépp mu ngi ci biir ndax gis nañ ne bëree bi bëree dóor rek moo fi amoon a mbapat léegi nag làmb mu ngi évoluer di avancer ligue gréco mu ngi fi ligue libre ligue olympique ba nga xam ne siwo yi siwo siwo 2022 yi Sénégal ñoo ko war a organiser kon bëgg nañ 2022 incha allah rabi ay champion génn ci écrit bi ñu war a dem participer ci ligue olympique bi wala ligue libre wala ligue gréco-romaine te incha allah rabi am nañ ci njort bu baax a baax a baax di ko ñaanal Papa saw ganam gi di ikrim bi yal na dem ba ay roi des arènes ci génn. am na solo waaw mais di xam naa sax loolu dinañ ci waxtaan mais dama koy laalal rek pour nit ñi Balla Gaye Boy Niang foo ci toll parce que dégg naa da ko doon dox. waaw effectivement dëgg la ñu dañ ko doon dox ba ta ba tey ñu ngi ci di ko dox. dama voyagé woon tey suba gi laa ñëw maa ngi egg si Dakar 7 heures de matin ñëw teew fii suba incha allahu rabi dinañ continuer démarches yi comme ni ñu ko doon defee. waaw ndax combat boo xam ne la askan wi loo koy laaj askan wee ko bëgg te sama wax li ma yàgg wax loolu laay wax lamb Sénégal idée yu koy suqali mbëri di fay ko 500 millions promoteur du perte du ko yaakaar si sponsor du ko yaakaar ci biir idée yi maa ko yor. yaa yor idée yi. non mu ci man. léegi dañuy koy dem yemale foofu dinaa la woo ñu toog waxtaan. problème yow sama doomu nday nga fa ma woo muyu la. ñi moom dooleel PA la ñu wax. am ngeen si droit seen gox ah ku mu ku nekk daal maar dooleelal fa nga dëkk man moom maa ngi dooleel sama dëkk ak yaay ca Bawol gama dëkk ma ngi lay bëggee am di. maa lay rëbbëggee El Hadj Babacar di la ziar bu wér. indi initiative boobu maanaam mbooloo mooy doole dooley PA ak li Papa Sow taxawal tey loo ciy wax ci tënk. waa initiative bi mooy mbër yi. dañoo bokk loo xam ne mënuñ ko seddoo mooy suñu gox bii te kenn yor si wërsëgu moroom suñu borom moo leen boole kon ku si nekk li nga ëppale sa morom da nga ko si war a jàppale léegi nag ñu xool loolu tuddee ko mbooloo mooy dooley parcelle waaw Papa lii mu def nii man am de en personne yaakamti woon naa ko suñu borom tey la ko dogal dama ko si ñaanal rek mu nekk njiglaayam ak njigilaayu mbër yëpp ñëpp ña fay nekk comme dafa jëm si combat sunu borom defal ko seen. gis nañ ko mu daan entraîné Gris Bordeaux ci wàllum box ci lamb muy kànji mais damay jëkk ci ménage bi Cheikh Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar. Babacar maa ngi lay fay. ba am nga jaam. alhamdulilah sant yàlla. bi wax ji amee après ñu ne papa day sos écrit dañu xëy dégg ñu ne Cheikh Ndiaye rejoindre na papa Sow si écrit boobu muy sànc di lu bees da nga koy confirmer wala déet. waaw léegi bon ñëw naa ci assemblée générale bi bon Bawol laa jóge actuellement nii. bon ñëw assemblée générale bi rek moo ma tax a jóg waaw parce que Papa Sow daf ma wax loo xam ne euh, wax dëgg yàlla su fekkente ne nii ànduma moom du ma du gor daal waaw parce que ba muy départ ci vingt mille francs ma koy engagé ba fii mu toll nii mu woo waa këram. papaam ak yaayam ak ñoom Ousa ak ñëpp famille am bi ñu toogee mu ne leen man du ma jël kenn mu may engagé ku dul Cheikh Ndiaye parce que musul musuma yàqal lenn ci sama àdduna waaw te it bu mu mës a am daf may indil sama reliquat normal waaw mës sa ñëw ne ma sa xaalis réer na musul musul ñëw ne ma paas naa ci mu musuma musul lenn daal musul. kon looloo waral kon su ma la déggee tey maanaam mën naa ne Cheikh Ndiaye génn na Fass définitivement ànd si ak Papa Sow ci euh, bon nekk naa fa ci ni ma fa nekkee parce que actuellement nii li tax ma mën a yaakaar ne ndax écrit Fass léegi ñoom bu ñu. bu ñuy engagé am na ñetti combat yoo xam ne mbër yooyu maa leen daan engagé. muy kan ak kan. Euh, kële euh, Serigne Ndiaye di Papa di kële Giri 2 Giri 2 tout récemment man maa ko engagé ci combat mu bi moo ko mujjee engagé mooy combat mag euh, rëg-rëg waaw léegi nag bi ñu ko defee moom ah, seeni combat taxaw na. ba ñu bëree ba ñu ba ñu bëree ko ñaari combat yi bëri nañ ko ba pare benn combat bi bëree guñu ko te kenn mësuma informé ci jox ma information ci combat yi jo waxuñu ma ne combat day day taxaw euh, maanaam joxuñu ma benn information daal. lé waaw léegi nag man maa ngi toog nag di di leen déglu ma xam. fa nga bokk ba tey wala bokkatoo fa. waaw fi mu nekk nii moom li ma mun a xam mooy ñama ñama fa daan engagé. ba léegi maa ngi leen di engagé waaw pour le moment nii man maa leen yor waaw mais écurie Fass nag décidé gul dara waaw waaw léegi dama toog di leen déglu mais mais fi mu ne nii Papa moom duma ma ko bàyyi du ma ko bàyyi benn yoon moom. doo ma sa bàyyi Papa du ko ma sa bàyyi waaw wax dëgg yàlla waaw. coach coach maa ngi coach lay bëgg. bu baax a baax. ci loolu nag yow itam day yaakaar naa ne ci équipe Fass lañ la xamoon ngay nekk ak mbëri ci wàllum box ak yooyu tey Papa woote nga ñëw lu waral teewaay bi fi ah teewaay boobu su ma waree ñëw su ma waree ñëw parce que xëy na moom moo ko ji rek Papa Sow la ah vraiment euh, ma jàppale ko si lu bëri nag ñu ànd si lu bëri maa ngi moom tamit depuis mu débuté combat am waaw vraiment si carrière bi ànd nañ si lu bëri bëri bëri bëri mu yor ma yar jox ma cër. xam nga fu laal ma fay laal ma ba pare vraiment cër boobu ma jox tey moo tax tey papa bu xewlee dara su si woowee rek damay ñëw wax dëgg yàlla ak lu mën a jàpp waaw. kon léegi su ma la déggee est ce que bu la woon ci seen i mbër pour entraînement di dem. non man écurie Fass gëj naa fa ñu ne ma entraîneur national laa gëj écurie waaw parce que depuis ba dégg naa ne mën naa ne combat Gris Bordeaux Balla Gaye bon instant yii maa ngi doon ñëw écurie boobu après gars yi xamatu fu ñuy entraîné comprendre nga bi nekk regroupement Kër Moussa Gueye kenn waxuma ni regroupement kenn waxuma dara tey si une semaine si lañ moo woo ne ma yow lañ mujj na ma entraîneur national si laa dem compétition internationale euh, Conakry combat Gris Bordeaux Balla Gaye sax génne naa ko si laa ne. kon yaay entraîneur national du Sénégal ci wàllum boxe. waaw si l' entraîneur national du Sénégal boxe waaw. maa ngi lay ngi lay dolli ziar. mu mel ni tey tamit ci làmb ci parcelle mënuñu koo tudd ci tudduñu la Papa Sow sanc na lu bees muy écrit bu bees ànd ceeg waa parcelle yi yow loo ci am comme kàddu ak taxawaay. waaw di la nuyu di la sant di la ziar parce que léegi laa est-ce que xam nga nga ne waaw xam naa la ma rafet lu ko lool euh, comme li nga wax rek euh, parcelle mënuñu tudd làmb te duñ mu tudd wax naa ko sànq si démbale si benn journal ne képp ku tuddu làmb parti di tuddoo ma duma la ko jàppee. xëy na sa xel moo toll foofu voilà mais tey fii booy bu bëgg bëree jaar nga sama loxo jàngal naa la bëri loolu moom leer na ma nañ lu dëgg kon nag papa def fii sama rak parcelle booy yi fiy takk nga mi samay rak nañu. nag moom lañ toogal nii mooy papa ay papa Sow yaakaar naa ne comme ni ko ci li ñu dégg loo xam ne xëy na fekke wuñ ko mais dégg nañ ko rapport ak Mbaye Guèye ànd. ba nekk yàlla def tey ñu nag ay mukallaf yàlla na leen fi yàlla gën a yàggal te wëral seen ay cër papa maa ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay delloo nuyoo bi di la ziar bu baax a baax a baax maa ngi lay nuyu bu baax. mel ni papa ginnaaw biñ la bi ñu nuyoo ba pare léegi question bi mooy boo ma doon dellusiwaatal sa digganteeg Mbaye Gueye ak sa digganteeg Grifa historique bi loo ci mën a fàttali ñi lay suivre ci Leewtoo TV. non Mbaye depuis jàpp naa date bi nga xamante ne ci la commencé ànd ak moom ci làmb mooy premier grand combat ak Papa dafa tombeek jour boobu la sama papa gaañu muy le 15 juin 67 euh, en même temps sama papa mu ngi gaañoo Mali yëgu woon ne gaañu na ma nekk ci mariage bi tombeeg aussi jour combat bi xam nga yooyu yëpp daf lay marqué ba doo ko mën a fàtte jour bi sa papa génne àddina ci encore ci samedi jooju lañ ma may sama première soxna pour te dire que ne c'était historique mënu ma ko woon a fàtte mu tax ma jàpp ne depuis le quinze juin 67 la ñu commencé ànd waaw ànd euh, ànd nañu nag très longtemps may tukki di ànd ak moom di ko jàppale ci làmbam ñooñu bokkuloon nekk ñëpp bàyyi man kese kese kese kese ci ñi doon doon ànd ak Mbaye Gueye démb man kese maa ci des. tey kon mel ni loolu yàgg na ngeen nekk ci làmb bëree ba bàyyi bëree sa ànd ak Mbaye bu ñu ñëwee tey lan moo ko dëgëraloon lan moo taxoon seen diggante dëgër ba mu ñëpp bàyyi yow nga des fa continuer ànd ak la wan la wala loo ko wan la. non man du lum ma won peut-être man maa amoon estime rek ñu nekkoon bokk groupe. may défendre groupe bi te man su may ànd ak nit en général euh, ni la yàlla bindee ak say défaut damay essayer rek xam ne ni la yàlla bindee ma ànd ceeg yow noonu ko mu tax parce que mosuma koo soxlal dara ànd nañu année boobu ma la wax ba fi ñu toll mosuma lekk dërëmu làmbam jamais au grand jamais mosul am mosuma ko demande aussi service dañ doon ànd rek te yàlla tax may sonn ci moom may voyager hmm. di def di def ay voyages yu bari tey bu loolu continuer ngeen nekk bokk benn écrit bi muy Fass écrit bi dem ba Mbaye Guèye bàyyi seen ay doom man seen ay rakk ñëw Tafa Guèye seen rakk la ñi di ci des di seen ay doom bi ngeen ñëw mel ni tamit ànd dafa continuer ngeen continuer di encadrer écrit bi. ànd ak ba mu bàyyi bëre di ko voyager li ma voyager moom moom confirmé na ne amul beneen doomu aadama bu mu ko àndal. jàmm rek waaw. tey ñu dem ba loolu mu mel ni euh, am na lu ci xaw a dugg donte parce que ñi jàpp nañ ne réeroo la ñi jàpp ne xëy na ñàkk waxtaan la ak yu mel ni ki noonu ci entre koo xam ne sa doom la te dégg naa ñu ne phase la juddoo yaa ngi dégg mu indi ay kii bañ ne génne nañ ko ci écurie bi ba tey mu sanc lu bees loolu noo ko gisee. non loolu amul problème moom yóbbuwuñ ko ci écurie bi dafa judd ci biir écurie bi bon bi mu juddoo ci biir écurie bi aussi yàqu fi euh, maanaam xëjalu fi cere tuuru fi ñeex. saagawul kenn deful kenn dara bon remplir na aussi contrat am ci biir écrit bi je crois que ci euh, ñi mos a bokk écrit face bokk na ci ku ci gën a rendre face service maanaam écrit ay victoire la bugg te li mu ko jox ci écrit keneen joxu ko fi euh, je peux dire que il a gagné quatre vingt cinq pour cent de ses combats c' était l' essentiel tey yàlla dogal na loolu nga wax am na génne na ci bi sanc na lu bees tey jëm ci combat am ñoo xam ne ni dañ jàpp ne combat bi mu jëm ak coow lii nii est na baax si moom ak yu mel ni ki noonu yow en tant que koo xam ne nii yàgg nga si làmb loolu est-ce am lu mu def ci moom si combat bi mu jëm. loolu mënul def kenn ci ñun dara lamb la yàgg naa bëre lamb c'est pas la première fois euh, combat combat la yàgg naa bëre komba combat yu gën metti métti yii nañu waxante rek li nga xamante ne moo am parce que ku bëreeg Balla bëreeg Lac de Guiers bëreeg Modou Lo mais donc amatul leneen loo xamante ne te war na la am lii lii ñun jàppe ko muy dara génn na ci écrit bi génn na ci écrit bi defuñu naxar defuñu leneen alors li ñuy def mooy taxaw jéem a góorgóorlu ba combat bi passé ñu def ci liñ ci war a def mais ay loo xam ne nit dina ko xalaat looy xalaat pourquoi ngay xalaat Siteu jarul xalaat. non waxuma ne jarul xalaat mais dama la du du problème du obstacle. c'est un combat comme le combat parce que lii mu jógee face dérangé wu ko tere wu ko nelaw yàqalu ko dara loolu la. du question ne respecté wuñu ko respecté nañu mais dama laa wax ne la c'est comme un autre combat rek comme moom mu ngi mel ni mu ngi ci écrit bi génn face taxul muy am ci moom benn dérangement wala lu muy xalaat wala lu mu ko mën a wàññi face la mu war a def beneen moromam defu ko fa. quatre-vingt-cinq de ces combats daf ko gagné ngi dégg bon petite taille yooyu ñuy wax en tout cas grande taille defuñu ko la mu def ngi dégg Mbaye Gueye moo fa def vingt-sept combats victoire Moustapha def na vingt-cinq bon moom il est sur la route def na vingt-trois donc moom je crois que à tête haute la génne fas loolu. Ah, tête haute la génne maanaam ci écrit bi daal pour yow. waaw. waaw léegi léegi loolu nga wax leer na léegi mu sanc lu bees lu bees li mu sanc euh, ban taxawaay la war a am pour lu bees loolu mën a dem ci kanam. ah taxawaay bi de xam nga dafa am ñu mu àndal ñooñu dafa mel ni ñoom ñoo ko gën a fonk li mu ubbi te moom itam bo mosuma gis daal mu négliger ay ci carrière am lenn lu mu doon ci àdduna quoi parce que su ko defoon du détenir da nga maam le plus nombre victoire da nga maam de la l'arène waaw donc je crois que font amu fi ñi ko xalal yoon wi aussi jàpp ci di ko guider nekk léppam foye wuñu ko alors euh, gisuma ci daal benn daal loo xamante ne non tey génn foofu nga xam ne nii moom mooy ceegri ba léegi jeex na sanc na lu bees léegi relation bi nga xam na xas na am ci seen diggante relation boobu ban taxawaay ngeen war a war a am yéen surtout kilifa yi ba mu gën a ratax wala. man nag sama digganteeg waa Fass yi amul problème amul benn problème parce que tey jii nii nii nii nii mën naa fee jóge léegi dem kër maa Gueye non sama xarit la. dinañu toog bi ñu ko toogee ba léegi benn yoon la ñu mës a wax ci comme ci affaire dàq bi benn yoon lu gàtt waaw. sama xaritu benn bakkan la. Malick Gueye ñu fàttali ne moom rakku Mbaye Gueye la. ñoo bokk ndey ak baay moom moo topp ci mbay Gueye bon man man jàmm ak salaam laa mosa a seq ak ñoom depuis cinquante deux ans ñu ngi ànd lii jotewuñ ci ñun dara sikkuñu ci kenn sikkuñu leen yàlla war a dogal rek suñu ànd yem fi yem na fi yaa ngi dégg ñun kii toujours Fass la nekk moom Fass la nekk yaayam Gueule Tapée Payen kër Seydou kër kër kër Dampay jàkkaarloog cinéma foofu coon sekk di tëggee. penc mi seen kër kër yaayam ak foofu la jàddoo foofu la jóge sëy si Fass te foofu ci Fass la bokk mu juddoo biir arène Madoune Khoule màggee foofu nekk ci écrit bi ba toll fi mu toll lii mën a nekk mooy génn na ci écrit bi mais génnul faas. maanaam daal su ma la déggee kon ba tey doomu faas la. doomu faas la ba suba tey la gën a nekk doomu faas écrit bi nag li gën rek la ñu def mënatuñoo ànd àndatuñu ñoom daal dem nañu bi demandé nañu na génn génn léegi nag ci jàmm ak salaam. est-ce que tey bu jëm mu jëm ci combat bu ngeen toogoon ba benn moment ngeen soxla xalaatu mbay gi wala tafa gi est-ce que loolu yéen bu keroogee di ngeen ko uti pour ci ñoom pour ñu jox leen ci dara. non franchement nag wax dëgg yàlla nag euh, moom nekkoon na ca écrit ba mais jàngewu fa bëre. luy loolu papa jànge fa bëre. non non non jàngewu fu mu jàngee bëre. non dafa jàngee bëre fii ci parcelle. ñii ñii kii toog nii muy lotu. latu latu bi. ñoom ñoo fi nekkoon di seeni grand ñuy ànd ak moom ak ñoom Oussa di bëre ba moom mu toll fi mu tollu def ay preuve ci mbapat bi ba ñëpp xam li mu demee ci mbapat mu dem fa ak ay bagage bi mu duggee Fass avant muy bëre Fass dafa génn dem inspiré wu Thiès waaw euh, mu inspiré wu Thiès am fa cinq combats arène soog a ñëw nag Fass Fass mu nga fa mais Fass jàngaluñ ko bëre. Fass jàng daal lañ ko defal mais jàngaluñ ko bëre. oui mais stratégie stratégie boppam la doon utiliser de stratégie boppam la doon utiliser. mais est-ce que tamit écurie bi amu ci woon lu mu ciy joué parce que écurie moom mënoo fa na xanaa entraîné na ak ñoom te duñ la jox benn stratégie wala benn xalaat. loolu dama ne la bi muy laata dem foofu il est agri. boobu xam-xam bi ñëw na daal. am na xam-xam jàngaluñ ko bëre xam nga ku ñu jàngal bëre. ñaari mbër la Fass jàngal bëre. kan ak kan. Gris Bordeaux ak Mor Nguer. kese. kon Tafa gi jàngee fa bëre. non Tafa ci àll bi la jàngee bëre bu mat sëkk. Balla Diouf itam jàngee fa sama kër la njëkk a takke ngemb. Balla Diouf waaw. ñii dañoo bëre mbapat. kii fi mbapat bërewul ñëw face à mooy Gris Bordeaux. Gris Bordeaux. ak Mor Nguer ñii ñoom Fass leen fabriqué et ces litres bon voilà loolu nag mooy am mais yeneen litres yi une bonne partie ñoom Rock Mbalax ñoom Bala Diouf ñoom Papa ñoom Ousa ñoom Sallo ñooñu jàngewuñu bëre foofu dañoo nekk ci écrit bi rek. kontaan naa yow papa.